li yàlla wax ci alquran ne bu ñu leen nuyoo ne bu ñu leen nuyoo. ngeen delloo nuyoo ya gën a sell. na ngeen delloo nuyoo ya gën a sell. kon alhamdulilah. kon alhamdulilah. nuyoo yooyu. nuyoo yooyu ñu ngi koy delloo ñu ngi koy delloo na mu gën a rafetee te na mu gën a rafetee te na mu gën a baaxee te na mu gën a baaxee alhamdulilah alhamdulilah kaddu yi itam kaddu yi itam waxtu bi ses na waxtu bi ses na waaye la ca am solo waaye la ca am solo mooy dénkaane rek mooy dénkaane rek kenn ku ci nekk rek kenn ku ci nekk rek delluwaat ci njàngale yonente bi delluwaat ci njàngale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi tabaraka wa taala borom bi tabaraka wa taala ba mu bindee ruuxu ba mu bindee ruuxu ndax ruuxu la njëkk bind ndax ruuxu la njëkk bind ba mu ko bindee ba bind jëmm mu daal bind jëmm ba mu bindee jëmm ba mu bindee jëmm muy ñaari mbindaafoon muy ñaari mbindaafoon muy jëmm muy jëmmi Seydina Adama ak ruuxu ba ak ruuxu ba mu dajale leen mu dajale leen ba ñu dajaloo ba ñu dajaloo ci la dund am ci la dund am moom la ñu tuddee nafsu la ñu tuddee an nafsu nafsu boobu nag nafsu boobu nag dafa laaj ñu taxawu ko dafa laaj ñu taxawu ko dafa laaj ñu tam ñu waaye dafa laaj ñu defar ko dafa laaj ñu raxas ko dafa laaj ñu raxas ko dafa laaj ñu kaweel ko dafa laaj ñu kaweel ko bakkan boobu nag. bakkan boobu nag. foo ci toll rek. foo ci tollu rek. am na nu ko borom xam-xam yi di dundee. am na nu ko borom xam-xam yi di dundee. bu yéegee beneen niveau. bu yéegee ci beneen niveau. ñu jox ko beneen tur. ñu jox ko beneen tur. ci misaal. ci misaal. boo xoolee meew. boo xoolee meew. dañ koy tuddee meew. dañ koy tuddee meew. waaye bu amee diir. waaye bu amee diir. dugg ci beneen melokaan. dugg ci beneen melokaan. ñu tuddee ko soow. ñu tuddee soow. dana dem. dana dem. dañu tuddee ko. ba ñu tuddee ko. diw. diw. dana dem. dana dem. dañu tuddee ko. ba ñu tuddee ko. fromage. fromage. te lépp. te lépp. ci benn. benn. melokaan bi la jógee. melokaan ba ba bàyyeekoo. waaye ba mu jëlee beneen melokaan. waaye ba mu jëlee beneen melokaan. ñu jox ko beneen. ñu jox ko beneen tur bakkan itam bakkan itam bi mu juddoo ba mu juddoo ci diggante ruuxu ak jëmm ci diggante ruuxu ak jëmm dafa laaj dafa laaj ñu di koy kawel ñu di koy kawel di koy puus di koy puus pour mu dugg ci beneen marxala pour mu dugg ci beneen marxala ndax ndaxte boo ko bàyyee noonu rek boo ko bàyyee noonu rek bokk na ci li gën a danger bokk na ci li gën a danger moom bakkan moom bakkan ba terbina. bi ne ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne boy muslu boy muslu del muslu ci bakkan nga muslu ci bakkan أعوذ بك أعوذ بك من شر النفس من شر نفسي ومن شر الشيطان ومن شر الشيطان وشركه وشركه كون تي بكان كون تي بكان تي لا نجك مسلو تي لا نجك مسلو بلا مسلو تي شيطان بلا موي مسلو تي شيطان تي اي كادوم تي اي كادوم لا تا گنونا بري لا تا گنونا بري بو دون واخك ak mbolo دون واخك daan wax ak mbolo واخ نان دا wax naan dafa daan wax naan na'udhu billahi na'udhu billahi min shururi anfusina min shururi anfusina kon bakkan dafa am tooke bu ci nekk dafa am tooke bu ci ne bu la laalee rek bu la laalee rek mën na laa sànq mën na laa sànq ndax seytaane ndax seytaane la muy bari bari pexe la muy bari bari pexe yàlla nee na yàlla nee na pexem lu tuuti la pexem lu tuuti la lii gën a sànq doomu aadama lii gën a sànq doomu aadama moom mooy moom mooy bakkanam bakkanam moo tax yonente bi ne moo tax salaay wax ne noon bi gën a rëy ci yéen noon bi gën a rëy ci ngeen ngeen ko ngeen war koo xeex ngeen war koo war ko bàyyi xel war ko bàyyi xel tuddul seytaane tuddul dafa ne dafa ne nafsuka sa bakkan allati bay na jàpp bi nga xamante ne mu ngi ci sa biir kon bakkan kon bakkan boo ko yarulee boo ko yarulee bàyyi ko noonu rek bàyyi ko noonu rek moom mooy li gën a danger mooy li gën a danger te moo la gën a mën a yàqal te moo la gën a mën a yàqal ndax seytaane ndax seytaane dañuy lu ci moom dañuy muslu ci moom ndax ndax mooy def loo nit lu ñaaw ndax mooy def loo nit lu ñaaw waaye seytaane ci boppam waaye seytaane ci boppam am na lu ko réeral am na lu ko réeral la ko upp doole nag la ko upp doole nag ba réeral ko ba réeral ko loolu mooy bakkan loolu mooy bakkan kon la daaneel iblis kon la daaneel iblis ba iblis mën a daaneel keneen ba iblis mën a daaneel keneen la daaneel iblis moo ko doole la daaneel iblis moo upp doole duñ ciy faral di bàyyi xel duñ ciy faral di bàyyi xel waaye bakkan waaye bakkan moo gën a danger seytaane moo gën a danger seytaane bu tolloo ci marxala bu njëkk ba bu nekkee nag ci étape bu njëkk bi dañ koy tuddee. dañ koy tuddee. an nafsul ammaara. an nafsul ammaara. mooy bakkan buy digle. buy digle. buy digle. ndax dafay digle. dafay digle. lépp lu yóbbu nit ki ca safara. lépp luy yóbbu nit ki ci safara. moom la koy digal. loolu rek la koy digal. amul leneen nag. amul leneen nag. moo tax ñu war ko yëkkati. moo tax ñu war koo yëkkati. yar ko fa. yar ko fa ndax boo ko fa bàyyee rek. boo ko fa bàyyee rek. an nafsu ka tifli mu ne bakkan dafa mel ni gune in tuhmilhu boo ko bàyyee noonu shabba ala mu daal di moy ubbi ridaay ci bëgg a nàmp wa in taftimuhu waaye boo ko feralee yaftim mu daal di feral kon bakkan boobu kon bakkan boobu il faut rek il faut rek nga yëkkati ko nga yëkkati ko ca fa mu toll fa mu toll ndax fa mu tollu ndax fa dafa tuuti dafa tuuti mooy mooy lu ñaaw lu ñaaw lu rafetul lu rafetul rek lay digal nit ki rek lay digal nit ki lépp lu koy yóbbu safara rek lépp safara moom moo koy moom moo ko koy digal rek moo moo tax alquran moo tax alquran wax ne wa maa ubarri'u nafsi man day seetalu ma sama bakkan inna nafsa ndax naka bakkan la am ik laa koonu bisuu'i lu ñaaw kese la lu ñaaw loolu nag lu ñaaw loolu nag ba ca jiitu ba ca jiitu moom mooy mooy daf koy digal kéeféer daf koy digal ak kéeféer السلام عليكم ورحمة koy digal daf koy digal kéeféer ak kéeféer te kéeféer fa muy yóbbee nit ki fa muy yóbbu nit ki mooy safara mooy safara kéeféer kéeféer mooy koo xamante ne mooy koo xamante ne nanguwul nekk ak yàlla nanguwul nekk ak boromam ne yàlla nekku fi ne yàlla nekku fi yàlla nekku fi yàlla nekku fi moo tax boo yëgee ci sa bopp moo tax boo yëgee ci sa bopp ne xaaral ma def bakkaar bi ne ma def bakkaar bi ndaxte kenn gisuma ndax kenn gisuma kon bu boobaa dugg nga ci kéeféer kon bu boobaa dugg nga ci ak kéeféer moo tax yonente bi ne moo tax yonente bi salaa salaam sàcc kii sàcc ba muy sàcc jamono ya muy sàcc foog ne kenn gisu ko foog kenn gisu ko nee du jullit mu ne rocc nañu ngëm ci moom kay def njaaloo kay def njaaloo yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal di nëbbatu di nëbbatu foog na kenn gisul foog ne kenn gisul boobu noonu heure boobu noonu ci kéeféer la nekk ne ci kéeféer la nekk kon bés boo yégee ne kon bés boo yégee ne yàlla nekku fi yàlla nekku fi xaaral ma def lu ñaaw xaaral ma def lu ñaaw loolu mooy kéeféer loolu lañ tuddee ak kéeféer bakkan nag bakkan nag foofu la lay yóbbu foofu lay yóbbu doomu aadama am ammaara ndax moom mooy diglaa ko bakkan day santaane bu dee ne toll na ci étape bu njëkk boobu fekkee toll na ci étape bu njëkk boobu loolu lay digal lu bon rek lay digal nit ki fàttel yàlla fàttel yàlla te nag ku fàtte yàlla te képp ku fàtte yàlla doo dugg aljana doo dugg aljana ndax yàlla ne ndax yàlla moo inna laa xaramahuma alal kaafiriin yàlla nee na maa ko xaraamal moom aljana ci képp ku ma wet ndoxu aljana ndoxu aljana xéewalu aljana xéewalu aljana yéeféer yéeféer xaraam na ci moom mu ne xaraam na ci moom du ko laal te bakkan bi loolu lay puus jàmm te bakkan bi ca loolu rek lay puus jàmm ci bu fekkee yaa ngi ci état bu moo koy puus. moo koy puus. ci nifaaq. ci mu nekk naafeq. te innal munaafiqiina. yàlla nee na naafeq yi. fi darakil asfali. ñu ngi leen di xàmbee ca fa gën a suufee. minan naar ci safara. moo koy puuse. moo koy puuse. muy fen. mu nekk fenkat. te yonente bi ne te yonente bi sala sallam wax ne wa inna al kadiba naka fen yahdi dafay gindi nit ki ila al fujuri yóbbu ko ci caay caay wa inna al fujura naka caay caay yahdi dafay gindi nit ki naari yóbbu ko ca biir safara te bakkan bi ci étape bi te bakkan bi ci étape bi loolu rek la lay digal loola rek la lay digal mooy ngay fen mooy ngay fen wala ngay def nifaq wala ngay def ak naafeq wala ngay kéefeer wala ngay def ak yéefeer même nay sax même nay bakkan moo la koy digal. bakkan moo koy digal doomu aadama. boo tolloo ci étape bi boo tollee ci étape bu njëkk bii. nay moo lay jàpp. nay mooy bañ a joxe moo lay jàpp. te yàlla nee na. te yàlla nee na. wa amma man baxi la. képp koo xamante ne nay na. dañ koy xeeb nag moom nay. moom nay nag lu ñuy xeeb la ci société bi. waaye ku ku nay du dugg aljanna. waaye yonente bi nee na ku nay du dugg aljanna. alquran nee na. alquran nee na. wa amma man baxi la. wa amma man baxi la képp ku nay daal doylu ne man. واما من بخل واما من بخل واستغنى واستغنى وكذب وكذب بالحسنى بالحسنى فسنيسره فسنيسره للعسرى عسرى عسرى موي جهنم موي جهنم تي ايتاب بي نك تي ايتاب بي بكان بي بكان بي داكوي بوس داكوي بوس تي ناي تي ناي moo koy puus. moo koy puus. moom bakkan bi. moom bakkan bi ci étape bii nii. ci étape bii mu ci lépp loo xamante ne rek. lépp loo xamante ne. dana ko dugal. dana ko dugal ca. mer ak yàlla ga ci mer suñu borom ca safara lépp lu koy dugal aljana rek lépp lu koy def ciy tayal moom bakkan da cay te du ci ta te du ci taxawu itam te du ci taxawu itam moo tax nit ki moo tax nit ki war a xeex boppam war a xeex ak boppam ba génn ci ba ci étape boobu la étape boobu war a dugg nag ci beneen étape war a nag ci beneen étape étape bu mu tollu foofu nag étape ba mu toll foofu nag ñun moom la ñuy tuddee ñun moom la ñuy tuddee ne diw sàngam ne diw sàngam yéeféer la yéeféer la wala diw sàngam ne diw sàngam saasaay la saay-saay la moo tax dagg bokk moo tax dagg bokk dagg bokk dagg bokk say bokk say bokk nga dogoog ñoom nga dogoog ñoom bañ a rafetoog ñoom bañ a rafetoog ñoom ku toll fii ku fii ci bakkan bu suufe bii bakkan bu suufe moom moo koy def moom koy def te kuy dagg bokk nag te dagg bokk nag du dugg aljanna du dugg aljanna yonente bi nee na yonente bi sallallahu alayhi wasallam maloonun mu ne ŋàññi nañ man xataa rahima képp ku dog bokkam dana ku dog bokk. ku dog bokk doo dugg aljanna. doo dugg aljanna. kon. kon il faut nit ki xeex. il faut nit xeex. ak bakkanam ak bakkanam. ba génnee ko. ba génnee ko ci état bu suufee bi. ci état bu ca génnagul rek. bu ca génnagul rek. tuddee ko yéeféer. ñu tuddee ko yéeféer. wala ñu tuddee ko saasaay. wala tuddee ko saay-saay. muy faafiq. muy faasiq. wala ñu tuddee ko. wala ñu tuddee ne kii naafeq la. ne kii naafeq la. mu war a xeex nag pour génn ci. war a xeex nag ngir génn ca. bu ca génnee nag. bu ca génnee nag. dugg ci martabatu. mu dugg ci beneen étape. nafsul lawaama. bu ñuy tuddee ak nafsul lawaama. al alquran wa mooy kiy yedd boppam. eer boobu. jamono yooyu. mu ngi yedd boppam. mu ngi yedd boppam. ca kéeféer ga mu nekkoon. ca kéeféer ga mu nekkoon. mooy fàtte ba mu fàtte woon yàlla. fàtte ba mu fàtte woon yàlla. mu ngay yedd boppam. mu ngay yedd boppam. ci dagg ba mu doon dagg bokk. ci dagg ga mu doon dagg mbokk. mu ngi yedd boppam. mu ngay yedd ca la mu doon wax. ca la mu doon wax. te du dëgg. te nekkul dëgg. ñaawteef ya mu doon def yëpp. ñaawteef ya mu daan def yëpp. waroon ko dugal safara. lépp mu ngi koy yedd. tey mu ngi koy commencé di rëcc mu ngi koy yedd. moo tax yàlla waat ca nag. moo tax yàlla daal di waat ci bakkan boobu. ndax boobu. ndax boobu. yëg na. yég na. ne war na jóg. ne war na jóg. te ki jóg te ki nar a jóg. ki jóg ki jóg ci dem la jëm. ci dem la jëm. moo tax yàlla ni. yaa yàlla wax ne. waat ca nag. dal di waat ne. laa uqsimu. mais maa ngi waat. bi yawmil qiyaama. ci bés yawmal qiyaama. wala uqsimu. bi nafsi lawwaama maa ngi waat ci bakkan bi nga xamante ne mooy yedd boo gisee mu tudd fa yow mal boo gisee mu tudd ndax li gën a bëri. ndax li gën a bëri. ci jullit ñi. ci jullit ñi. foofu la ñuy toll. foofu la ñuy toll. faatu ku toll ci étape bee ku tollu ci étape bu njëkk bi ku fa faatu ku fa faatu jahannama la jëm jahannama la jëm muy muy bakkan bi digle lu bon te nit mën na dem ba juróom benn fukki at te nit mën na dem ba juróom benn fukki at toll foofu le des ci bakkan boobu rek di naan sàngara di naan sàngara di def lu bon di def lu bon di def lu ñaaw di def lu ñaaw seexluwul seexluwul lu rafetul lu rafetul ba xëy faatu ca. ba xëy faatu ca ku ca faatu nag. ku ca faatu nag jahannama la jëm. yàlla nee na jahannama la waaye bu dee lawaamatu. waaye bu dee nafsu lawaama. bu dee yegg nga fa. muy bakkan bi yedde. boromam bu fekkee yegg nga fa. mën na mucc boromam mën na mucc. ndax xalaatu xalaatu amalan saalihan. wa axara fiya ndax dañoo boole jëf ju ñaaw ja jiitu woon ñu rafetalee ko jëf ju rafet. ji mucc mooy tuub ba loolu mooy tuub ba. ndax yedd. ndax yeddu boo yeddee sa bopp rek boo sa bopp rek loolu mooy tuub loolu lañ tuddee tuub yonente bi nee na yonente mi sallallahu alayhi wasallam wax ni an nadamu mu ne tuub an nadamu rëccu ak taw tawba mooy tuub fa tax mu ne moo tax mu ne yaa ayyuha dina am yéen ñi gëm tuubu ilallah na ngeen dellu ci seen borom tawbatan nasuha waaye nag mu nekk tuub bu kon kon il faut nga génn ci martaba bu njëkk ba. faut nga génn ci étape bu njëkk bi. dugg si ci ñaareel bi ñëw ci ñaareelu étape. waaye boo fa tolloo nag. waaye boo fa tolloo it. muccaguloo muccaguloo it il faut il faut nga góorgóorluwaat nga góorgóorluwaat ba dugg ci beneen étape. ba dugg ci beneen étape bi. beneen étape ba. beneen étape ba moom la ñuy tuddee. moom la ñuy tuddee. an nafsul mulhama. mat an nafsul. al mulhama al muy bakkan bu ñu yënkawal. lan lañ ko yënke woon lan ñu ko yënke woon mooy lépp lu koy dugal aljanna mooy lépp lu koy dugal aljanna nafsul ammaara nafsul ammaara daf koy puus daf koy puus di koy digal di koy digal lépp lu koy dugal safara lu koy dugal safara rek waaye nafsu bii nag waaye nafsu bii nag daf koy digal daf koy digal di koy yënkewal di koy yënkewal lépp lu koy dugal aljanna lépp lu koy dugal aljanna ni ki taqwa ni ki ragal yàlla boo wéetee boo wéetee yow kese. yow kese. alalu jàmbur. alalu jàmbur. ragal yàlla ñëw. ragal boo ragalee yàlla. boo ragalee yàlla. inna lil muttaqiina. ndaxte yàlla nee na ñeel na ñi ragal yàlla. ak mucc. boo weetee. boo ci deru nit. ci deru jàmbur. nga ragal yàlla. nga daal di yàlla. inna lil muttaqiina. yàlla ne ñeel na ñi ragal yàlla. texe. bakkan boobu boo fa tolloo. bakkan boobu boo fa tolloo. moo lay yënkewal. moo lay yënkewal. bàyyi àdduna. bàyyi àdduna ndax yàlla dafa wax ci seydina muusa yàlla dafa wax ak seydina muusa ne ko ne ko li ma leen bàyyiloo li ma leen bàyyiloo la ma gënal ngeen bàyyi ko la ma gënal ngeen bàyyi ko mooy ngeen bàyyi àdduna mooy ngeen bàyyi àdduna alquran alquran wax ne amma man xaafa mu ne képp ku ragal maqaama rabbi tollu waayu boromam wa naha nafsa daal di tere bakkanam anil hawa ci bépp bànneex bu koy sànq fa innal jannata kooku day aljanna kon kooku puus na ko ca aljanna moo di dëkkuwaayam bokk na ca. kon bokk na ca. bokk na ca. bokk na ca. daf lay yënkewal. daf lay yënkewal. nga wàccee sa bopp. nga wàccee sa bopp. te ku wàccee boppam. te ku wàccee boppam. yàlla teg ko ci wetam. yàlla teg ko ci wetam. bokk na ca. bokk na ca. daf lay yënkewal. daf lay yënkewal. tab. tab muy tabe. mën a joxe. mën a joxe. sa njaboot. sa njaboot. ndax yonent bi dina commencé foofu. ndax yonent sa la sallam nee na tabe ma nga tàmbalee ci sa njaboot. dëkkandoor sa dëkkandoor say bokk say mbokk nga mën a joxe nga mën a joxe te bul naw la ngay joxe te bul nawit la ngay joxe yàlla ne yàlla ne wa amma man aata ne képp kuy joxe wa taqa ko ragal yàlla mooy amee ko nu lew nag mooy nag nga amee ko nu lew wa amma man aata amma man a'ta ki joxe ki joxe wattaqa wattaqa te sakko ko fu lew te sakko ko fu lew saddaqa bil husna wa saddaqa bil husna gëm ne dana dajeek sarax bi gëm ne dana dajeek sarax bi mu joxe fasan yasiru ko ko it lañ ko yombalal lil yusra lil yusra al janna nafsul mulhama mu ne nafsul mulhama moo lay puus ci dëgg mooy ñeenteelu bakkan boobu di la puus ci dëgg wa innal sidqa yàlla yonent bi ne naka dëgg daf lay yóbbu ci mbaax wa inna albir yahdi ila aljanna naka mbaax daf lay joyant yóbbu la ci aljanna moo lay yënkewal ngay defar mbokk moo lay yënkewal ngay defar mbokk ndax yàlla nee ko dàgg ndax yàlla nee ko dàgg ma dagg ko ko ku ko ma ko ma ko ki tollu ki tollu ne borom xam-xam نفس الأمارة نفس الأمارة برومون ساي ساي لا برومون ساي ساي لا ولا مدون يفر ولا مدون يفر ولا مدون نافر ولا مدون نافر نفس اللوامة نفس اللوامة برومون مسلم لا برومون مسلم جلد لينه مؤمن لا مؤمن جم لينه تائب لا توب كات لين تو تائب حبيب الله تيان تبنينا كيتو موي سوبي واي بو يكسي فينا واي بو يكسي نينتلو بكال بو بو muy bakkan boo xamante ne lu baax rek la lay digal léegi. aalim yow xam nga. bu boobaa yow aalim la ñu tuddee yow xam nga. xam nga léegi nag. yow xam nga léegi. waaye xam nag. waaye xam nag. taxul nga mucc de. taxul nga mucc de. yonent bi nee na. yonent bi sallallahu alayhi nee na. kullu naasi halaka. nee nit ñëpp sànku nañ illa la aalimuna. lu dul ña ca xam. wa kulluhum halaka. mu ne ña xam yëpp sànku nañ illa la aalimuna. lu dul ña cay jëw. kulluna amilina halka mu ne ñooñu di jëf ñëpp sànku nañ illa al muxlisuun ñu dul ñu ngay sellal wal muxlisuun ala mu ne te ñooñee di sellal ñu ngi ci danger bu moo tax boo tolloo fii mu ne moo tax boo tollee fii il faut nga góorgóorlu il faut nga góorgóorlu ba dugg ci beneen étape ba duggaat ci beneen étape boobu nag booba nag moom la ñuy tuddee nafsul mutmainna moom la ñuy tuddee juróomeelu bakkan bi muy nafsul mutmainna mooy bakkan bi teey bi boo fa yeggee nag boo fa yeggee boo sa faatoo rek. boo ca faatoo rek. man nga texe. boobu da ngay texe en direct. yaa ayyatuhan nafsul na yow bakkan bi tey yow mi yegsi ci martaba bii. yow mi yegsi ci martaba bii. irji ila rabbik. dugal nga dellu ci sa borom. radiyatan mardiya fadxuli fi ibadi wadxuli jannati. bu gërëm bu ñu gërëm lu dugal ci sama aljanna. moo tax ñu ñu fi teew. moo tax ñun ñi fi teew. kenn ku ci nekk. kenn ku fi nekk. fexel nga xeex ak sa bakkan. fexel nga xeex ak sa bakkan. ba yegg si fii ba yegg si ci juróomeelu étape bii. li tax ñu tuddee ko mutma inna. li tax ñu tuddee ko mutma inna. ndax lu baax. ndax lu baax. def ci sawar. da cay sawar. lu bon. lu bon du ci sawar. dootu ci sawar. tatma innu. tatma innu. ila fi'lil ma'rufi ila fi'lil ma'rufi. mu ne xel mu bakkan bu dal dafa bokk ci. ndax dafay dal dafay dal ci jëf ju baax ci jëf ju baax lu baaxul lu baax bu wé lu baaxul lu baaxul mënu koo def mënu ko def boo fa yegsee nag boo fa yegsee nag boobu mooy bi yàlla soxla boobaa yow xam nga ne yaa ci juróomeelu étape bi yàlla soxla boo fa faatoo rek boo fa faatoo rek arjana ngay jëm direct arjana ngay jëm en direct yal nañu yàlla yeggale foofu yal nañu yàlla yeggal foofu waaye en tant que nit la waaye en tant que nit war nga góorgóorlu war nga góorgóorlu ba romb ko ba romb ko dugg ci beneen étape dugg ci beneen étape mooy an nafsu raadiya mooy an nafsu raadiya mooy juróom-benneelu bakkan bi mooy bi nangu yàlla mooy nangu yàlla bakkan bi nangul yàlla lu yàlla dogal ci moom lu yàlla dogalati ci moom baax na moom baax na foofu la yonente la yonente bi yeggoon keroog bañ ko jamee ay xeer keroog bañ ko jamee ay xeer ca taif ca taif ca ba mu ñëwee ba mu ñëwee di ñaan dafa ne di ñaan dafa wax ne waxul yàlla alag leen waxul yàlla alag leen waxul defal ma lii waxul yàlla defal leen dafa ne dafa ne. yow yàlla. yow yàlla bu dee sa mer nekku ci. bu dee sa mer ci. na nangu naa. naa li kon foofu. kon foofu dafa nangul yàlla. dafa nangul suñu borom. foofu la ko saxaaba yi jëlee. foofu la ko saxaaba yi jëlee. Saadi ibn Abi Waqaas. Saadi ibn Abi Waqaas. lu mu ñaanoon yàlla rek. lu mu ñaanoon yàlla. yàlla def ko. yàlla defal benn doomu bàjjenam. benn doomu bàjjenam. ñëw ci moom. ñëw ci moom. ne ko ah. ne ko ah. yow mënoo ñaan dara. yow mënuloo ñaan dara. ndax boo mënoon ñaan. ndax boo mënoon ñaan. sa bopp ngay ci sa bopp ngay njëkkee. nga ñaanal sa bopp sa bët xool. nga ñaanal sa bopp ndax nga mën a xool. ngay ñaanal nit seen soxla di faju ngay ñaanal nit ñi seen soxla di faju te mënoo ñaanal sa bopp pour mën a wér. te mënuloo ñaanal sa bopp ngir mën a wér. mu ne ko da xamul. mu ne ko yow da ngaa xamul ndax li ma yàlla teg nii. ndax ma yàlla teg nii. te tàgguwuma. te tàgguwuma. moom la neex. moom la neex bi mu ko neexee rek. ma neexee rek. man neex na loola moo tax Aboubacry. moo tax Aboubacry. ba mu feebaree. ba mu feebaree. ñu indil ko garab yi. ñu indil ko garab yi. ne ko naanal. ne ko docteur bi nee na nga naan. mais docteur na nga naan. mu ne leen. mu ne leen at tabibu amrada. mu ne kii kii kii feebaree moo feebar. docteur bi moo ma feebar. docteur bi moom moo ma teg feebar. parce que dafa dem ba nangu yàlla ci lu ne. dafa dem ba gis naa ko ci nitu yàlla yi sax. gis na ko ci nit yàlla yi. ku ñu jox garab. ñu jox garab mu ne yéen laay dalal seen xel rek. mu yéen laay dalal seen xel. <laughs> waaye soxlawu ma ko. waaye soxlawu ma boo yeggee foofu. boo demee ba yegg foofu. lu yàlla defati rek. lu yàlla defati rek. lu yàlla defati rek. lu yàlla defati rek. yow nangu ko yow ak mu mënti demee nag. ak nu lu mu metti métti. lu mu métti métti. da ngay bàyyi noonu. da bàyyi noonu. foofu nag foofu nag boo fa yeggee boo fa yeggee ci ngay tiimu nag ci ngay tiimu an nafsul mutmainna an nafsul mutmainna muy bakkan bi dal bi ñu waxtaanee boromam nag boromam nag bu ñu koy jox tur buñ koy jox tur ñu koy tuddee ne waliyu la dañ koy tuddee waliyu la ala in ala inna awliya allah mais yàlla nee na sama gaa yi la xaw ñooñu duñu ragalati dara te mu ngi njàppale bu baax waaye waroo fa yem waaye waroo fa yem góorgóorlu war a góorgóorlu ba romb ko ba yomb ko dugg ci beneen étape dem ci beneen étape mooy an nafsul mardiya muy an nafsul mardiya bakkan bi ñu gërëm mooy juróom benneen mooy juróom benneen bi moo gërëm lépp lu ko yàlla teg bii nag moom moo gërëm moom lañ gërëm moom lañ gërëm ku yàlla gërëm ku yàlla gërëm moom lay wax ci alquran ne moom lay alquran di wax ne radiallahu anhu ne yàlla gërëm na leen ñoom saxaaba yi ñoom it gërëm nañ seen borom laqad radiyallahu yàlla ne ma gërëm na yàlla anil mu'minina ne jullit yi ko gëm is yu bàyyi woon keroog ba nga xamante ñu ngi jaayante taxta shajarati ci ron garab ba ca yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo fa yeggee nag boo fa yeggee nag loo defati rek loo defati neex na yàlla neex na yàlla moom la yonente bi woon Seydina Ousmane la bi waxoon Seydina Ousmane ne Ousmane ne Ousmane gannaaw tey jii nii gannaaw bés ni ki tey mënatoo def yàlla mënatuloo def yàlla lu ko naqari lu ko naqari yàlla gërëm na yàlla gërëm na la yal nañu fa yàlla yëggal yal nañu fa yàlla ku nekk nag nit ku nekk nag war a xeex war a xeex ak boppam ak boppam ba yëgg fa ba yëgg foofu waaye nag waaye nag bu dee càggante la mu dee ak càggante la war moom mënu faa yëg war ki fay yëg si nag ki fay yëg si nag moom la ñuy tuddee kooku la ñuy tuddee ar rabbaani ar rabbaani yàlla ne yàlla ne kunu rabbaaniyiina kunu rabbaaniyiina bimaa kuntum bimaa kuntum tuallimuuna alkitaaba tuallimuuna alkitaaba wa bimaa kuntum wa bimaa kuntum tadrusuuna tadrusuun na ngeen doon rabbaani yi na ngeen bokk ci rabbaani yi doon ay nitu yàlla yàlla nga boo fa yeggee boo fa yeggee amatul dara looy jaaxle amatul dara looy jaaxle loo bugg rek loo bugg rek Mariam Mariam bu xiifoon rek bu xiifoon rek fekk ñam bi toog ci wetam kullama dakhala alayha saa soo xamal dugg na ci Mariam Zakaria moom Zakaria wajada inda Harisa daal di fekk ca moom parce que yàlla def ko gërëm ba pare yàlla def ko gërëm yi Zunnunul nit ku baax la woon nit ku baax la woon nit ku ñuul la woon nit ku ñuul la woon nekkoon ci Misra nekkoon ca Misra ne dafa mas a dem ca Kaaba ja ne dafa mas a dem ca Kaaba ga di tawaaf di tawaaf ba gis benn jigéen ba gis benn jigéen mu nga jàppandiku ca Kaaba ja mu nga jàppandiku ca Kaaba ga mu ngay wax naan mu ngay wax naan yow yàlla yow yàlla ci sopp bi nga ma sopp ci sopp bi nga ma sopp jéggal ma rek te yërëm ma rek te ma mu ne loolu nag jaaxal na mu ne loolu jaaxal ko moom sunu ministre yi nee na ma ñëw taxaw nee na ma ñëw taxaw ma ne ko waa ndaw si ma ne ko waaw ndaw si yow ndaw si ku jigéen la ku jigéen la pour wan la ne nitu yàlla pour wan la ne yàlla yi ay jigéen am na ci de am na ci ay jigéen mu ne ko ku la wax ne mu ne ko kan moo la wax lii yàlla def la sopp yàlla def la sopp mu ne ko yow ni nga toll mu ne ko yow na nga toll waa misra yëpp yaakaar la ci xam-xam waa misra yëpp yaakaar la ci xam-xam ba mënuloo trouver solution mënoo trouver question boobu ba yow mënuloo xam lii may wax nii lan la lan la wundu xanaa déggoo yàlla nee na xanaa dégguloo yàlla wax ci yuhibbuhum yuhibbuhum yuhibbuhum yuhibbuhum wa yuhibbuhum yàlla moo leen bëgg. moo leen sopp ba pare. moo leen sopp ba pare. door a ko xanaa xamuloo bu la yàlla soppulee. xanaa xamuloo ne yàlla bu la soppulee. mënoo ko sopp mënuloo ko sopp. sopp yàlla lañu wax nag. sopp yàlla nag la ñu wax. ndax ku sopp nag topp. ndax ku sopp topp. alxubbu. alxubbu muy bëggeen. wal ittibaa mooy topp nag. in kuntum tuhibbuuna llaaha. ni ngeen ko waxee. topp leen yonent bi topp yonent bi topp yàlla. kon. kon nit ki war na góorgóorlu. kon nit ki war na góorgóorlu. ba yegg ci martaba ba yegg ci martaba ak. doon doon rabbaani yi la. nekk ab rabbaani yi waaye bu mu fa yem. waaye bu mu fa yem. na góor na góorgóorlu. de romb ko. de romb ko. ña fay yegg nag néew. ña fay yegg nag néew nañ. mooy juróom-ñaareelu étape bi. mooy juróom-ñaareelu étape bi. nafsul kaamila. ñu ngi am nafsul kaamila. mooy bakkan bi mat di complété. ñu tuddee ko ak nafsu saaliha. ñu tuddee ko ak nafsu ndax foofu. yéwén na foofu yéwén na pour mën a doon pour mën a doon kuy kuy gàttandu kuy gàttandu leeru yàlla leeru yàlla ak xam-xamam ak xam-xamam ak yërmandeem ak yërmandeem moo tax yonente yi moo tax yonente yi téere yi doon wàcc ci ñoom téere yi doon wàcc ci ñoom am ñu ko wax ci boroom xam-xam yi sax am na sa ñu ko wax ci borom xam-xam yi ne ña fay yëgg ne ña fay ay yonente kese ay yonente kese waye martaba bobu nak waye martaba bobu nak même yonente yi. même yonente yi. dañ ko ñaan yàlla. dañ ko ñaan yàlla. Seydina Ibrahima ne. Seydina ibrahim wax ni rabbi habli hukman. yow yàlla may ma. hukman moy hukman mooy mbaax. xam-xam xam-xam xam-xam. wa alhiqni. wa alhiqni. bis salihin yow boole ma bis salihin ñu baax ñooñu ma ko mat. Seydina Souleymane. Seydina Souleymane. loolu la ñaan. fofu la jaar. إني تبت إليك بمو ينعن نه ربي أعوذنا أشكر نعمتك التي أنعمت عليه وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني وأدخلني برحمتك برحمتك في عبادك الصالحين boobu la ñuy tuddee ak nafsu moom la ñuy tuddee ak mooy bakkan bu baax. mooy nit ku nekk nag. nit ku nekk nag. ci ñun. ci ñun war nga fexe. war nga fexe. jël sa bakkan bi. jël sa bakkan. tëgg ko. di ko tëgg. di koy tëgg. di ko wulli. ba génnee ko. ba ci martaba bu njëkk ba. ci martaba bu njëkk ba. boobu baaxul. boobu baaxul. génn dugg ci ñaareelu martaba génn ko dugg ci ñaareelu martaba du waaye boobu bu fa yemee waaye boobu yëpp boo fa yemee texeegul ba léegi tey texeeguloo na dugg ci ñetteel bi dugal ci ñetteel ba bu duggee ci bu ñetteel bi boo fa duggee taxul texe ba léegi taxul texe bu yeggee ci ñeenteel bi nag bu yeggee ci ñeenteel bi nag fu nag man na texe ma mutmainna boobu nag ca lay texe yal nañu yàlla may boobu yal nañu yàlla may yal nañ ko yàlla yombalal yal nañ ko yàlla yombalal kon alhamdulillah alhamdulillah dogaay bi yàgg na. dogaay bi yàgg na. bëggoon nañ ko dagg sax. ko dagg ndax añi yegg si nañu. ndax añi yegg si nañu. alhamdulilah. alhamdulilah bu ko defee ñëpp ñu def fatiha. defee ñun ñëpp ñu def fatiha. góorgóorlu nag. góorgóorlu nag. ci teewaay bi ñu fi teew. ci teewaay bii ñu fi teew. lekk ak naan. lekk ak naan. taxu ñu jóg. taxu ñoo jóg. teel lañ ko bàyyi. ruuxu bi. waaye ruuxu bi. dafa am cëram. am cëram jox ko wàllam di biri jëmm ji dañ ko jox wàllam ndax nit ñett la ndax nit ñett ko composé niñ ko doon tuddee léegi niñ ko doon tuddee léegi xel mi xel mi jëmm ji jëmm ji ruuxu bi jëmm ji jëmm ji boo ko joxee cëram boo ko joxee cëram fexeel ruuxu bi fexeel ruuxu bi nga jox ko cëram jox ko xel mi itam xel mi nga jox ko cëram nga jox ko cëram xel mi la koy jox la lay cëram xel mi lay cëram mooy xam-xam mooy xam-xam nga téye ko nga téye di koy nafataat di koy nafataat di koy jëriñoo di koy jëriñoo def ko comme torsu def ko comme di koy leera leerale sa kanam di la niital ci sa kanam loo loo yegg si rek loo yegg si rek ne déggoon naa ne déggoon naa borom xam-xam yi nee nañu borom xam-xam yi nee nañu lii nii lañ koy defee lii nii lañ koy defee lii waruñ ko defee lii waruñ ko defee nga di koy niitee nga di ko niitee ndax ndax torsu torsu mooy pour bul fakkastal la mooy pour bul fakkastal te bul dal ci kaw pakk kon nañ jël xel mi kon nañu jël xel mi jox ko cëram jox ko cëram ruuxu bi ruuxu ñu jox ko cëram ñu jox ko cëram ci zikr bi ci tudd yàlla salaatu ala nabi na bëri ci julli ci bi na bëri salaatu yi nañ bëri salaatu yi nañu bëri ci jamono bi ñu toll jamono bi ñu toll salaatu ala nabi salaatu ala moom rek moo ñu mën a xettali moom rek moo ñu mën a xettali na bari ci suñu làmmiñ yi bëri ci suñu làmmiñ ndax bakkaar fi muy jaaree nit bakkaar fi muy jaare nit dafa bëri dafa bëri ci bët ci bëtam ci lox ci loxoom ci tam euh, làmmiñ ci làmmiñam ci nopp ci noppam fu nekk fu nekk rek dañ fay fekk bakkaar dañ fay fekk bakkaar waaye salaatu ala nabi la salaatu ala mooy liy ñëw di fomp rek mooy liy ñëw loo yëgul sax moom mën a koy nekkoon nañ jël salaatu ala nabi nañ jël salaatu ala nabi diir biñ fiy nekk diir biñ fiy nekk nga fasoo ko sa bopp fasoo ko suñu bopp boo ci defee té juróom benn téeméer defee juróom benn téeméer ñaanal say bokk ñaanal say bokk ñaanal say wayju ñaanal say waaju waa ñaanal say maam ñaanal say maam ñu nekk ci bàmmeel ya nekk ci barsax ndax da nga ko mat a demee ndax bés gi ñëw leen fekk ñaanal sa njaboot ñaanal sa njaboot def astaghfirullah def astaghfirullah mu bëri mu bëri juróom benn téeméer juróom benn téeméer jéggalu ci yàlla jéggalu ci yàlla muy la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah nga def ko nga def ko bu ko uppee uppee ba ci junni ba ci junni baax na baax na boo defee fukki junni sax boo defee fukki junni baax na gën naa baax béréb baa ngi nii. barab baa ngi nii. juma jaa ngi nii. juma jaa ngi nii. daara jaa ngi nii. jaa ngi nii. ron mango yaa ngi nii. ron mango yaa ngi nii. xoolal sa sajaada rek. xoolal sa sajaada. commencé tudd yàlla. commencé tudd yàlla. jël sa yobbal. jël sa yobbal. moo gën taxawaalu bi. moo gën moo gën leneen ak leneen. moo gën leneen boo demee. bés boo demee. mu mel ni. mu mel ni da nga demoon aji. da nga demoon aji. yonente yonente bi ne. yonente bi ku ñëw aj. ku ñëw aj. defee ko ni ma ko waxee. defee mu ko waxee. booy dellu. booy say bakkaari pay jeex. say kon boo ñëwee ci béréb bii ñëw ci daara ji war nga fexe la ngay def ca aj ba nga def ko fii genre touriste la. genre bàyyi sa soxna fee. bàyyi sa soxna. bàyyi say doom fee. bàyyi say doom. bàyyi say liggéey fee. bàyyi sa liggéey. ñëw rek. ñëw rek concentré wu ci yonente bi. ngir ñëw fekk bés yonente bi. dal di julli ci moom. dal di julli ci moom jéggalu ci yàlla. jéggalu ci yàlla. du yàlla lu yàlla lu bari rafetalaat sa xol sa xol. muñ bi. muñ nga yokk ko. nga yokk sa diggante ak say bokk. diggante ak say bokk. sa diggante ak ña ngay liggéeyal. sa diggante ña ngay liggéeyal. say dëkkandoo. say dëkkandoo. xel mu rafet bi. xel mu lu nekk. lu ne nga defaraat ba mu baax. boo delloo delloo boo delloo set wecc ci bàkkaar wecc ci bàkkaar yal nañ ko yàlla yombal yal nañ ko yàlla def yal na yàlla nangul walhamdulillah kilifa yi fi teew yëpp itam yi fi teew yëpp walhamdulillah alhamdulillah di na am na ñu fi yebal am na ñu fi yebal si doomam bu mag